ah loolu de maa ngi koy doog ah. ah ñu ngi ci région yi demal nga tabi sama tur nga xool. ah ban problème Amélie Mbaye Emprise saison 2 di a gis. ah fan nga nekk léegi. man maa ngi fépp man. yéen Marodi rek tout sauf ça Marodi. tout sauf Marodi. lan moo tax loolu. laaj leen ko. léegi kan lañ koy laaj pot wala kan. déedéet pot pot pot pot. Mass laaj leen ko Mass Ndour Mass Ndour mooy mooy mooy kii. Ah. mooy euh, producteur Marodi. Ah. mais c'est pas pot les gens pensent que xorom bi xorom ak lépp kay. waaw léegi nag léegi yow. da nga faa waroon a. ak da ngay tëj sa gémmiñ cuub da ngay tëj sa gémmiñ cuub da ngay tëj sa gémmiñ. mais départ départ booy ñoom Doudou ak Ngor ak euh, projet bi ñu lancé naka naka naka nga ko gisee. kan ci Doudou ak Ngor projet euh, ay éléments marodi lañ woon ñu. dégagé ah, je sais pas man man dama leen gis xam nga bokkuñu ay produits donc. dañ euh, dama leen di gis nii rek mais xaw ma leen ¿Cómo le? on ne joue pas ensemble. Donc. Uh ah, -huh. Ah, okay. Okay. Mais même maison de production. Euh, mais on n'est pas sur les mêmes plateaux. C'est pas parce qu'on est dans la même maison qu'on se connaît. <laughs> on ne tourne pas dans les mêmes euh, produits. Produits, ça c'est voilà. <laughs> Mais un euh, euh, problème au cassé là, on voit le problème là. Yo, man, demande pas parce là ma tour d'ingo gis. Mais problème cassé là, un problème Fille, fille là, il quoi, a va. Non, problème cassé. Ah là là. Nga Google, nga gis Amélie Mbaye en prise saison 2 du collier. Ah, Daf na ben interview bu gudd, lepp nga ci. Waaw waaw, mais mais bo fatte nañ ko sénégalais fàtte nañ ko wax ñu ko. fàtte wu ñu ko de xanaa yow yaa ko fàtte. waaw waaw waaw may léegi de kan nga amal problème. ma ne yow demal nga seet Google soo ko Google. maas tamit mi ngi bëgg a sikk nag demal sama page di nga ko gis. maas gi bëgg a sikk. man. ah maas gi bëgg a sikk. ah maas kay wax ko. waaw mi ngi bëgg a sikk nag. yaa gën a sikk. ah mais euh, dama xam ne ku mel ne yow ah ah rafet écran yow télé bëggu télé yow bëggoo télé écran bëggoo écran écran wu la bëgg. téye sarment ah téye galant téye zanti ah. bu leen ma wax looloo xam ne dina tax ñu xuloo te encore. ah ah. ah. ah? ah. ah. waaw ku mel ni faire ça de ah waaw. la fan fan si la si la si la man man duróog sama yaay parce que Seydina oh, moom. ñooñu ñu may rek a déglu dafa koy seetaan yow sama jabar ma ne ko mais bi daf ma neex. am valeur dafa am qualité. barkeel masala ba pare am culture. yàlla yàlla jàppale boole ma ci affaire yi amiin amiin da nga teral sa géwél sinon rek du ma am essence maa ngi nii sama yaay ji. laajal sama rakk ji laaj ko ndax moom mi ndax am naa essence man maa ngi seet ku may yóbbu. Ah! fi ma ne nii damaa joxe joxe joxe ba ci amatuma lu ma. waaw yan yéen a ma war a jox nag man mi nga xam ne man maay seen yaay ma ne ban bagage ma nekkatuma Marodi kii xaw ma mu ngi filmé rek moom ngi bi. ah léegi léegi léegi ah, ah, lan ban conseil nga war a conseillé waa Marodi ban ban conseil parce que ñi fa bëgg. ñi fa jógee bëri nañ waaw. Ah. waa Marodi wala acteurs yi.

<laughs> so.